waxoon naa leen démb ne saar yu njëkk wàcc ca Madina mooy bàqara ba fa njëkk wàcc naafeq yi naka lañ jiitu woon mooy ibnu ubay turam mooy abdoulaye moo doon jiitu naafeq yi waxtu julli jotee dafay dem ca sàppe sa leroog jullit ñi waaye bu naafeq yi def congrès nag ak yéefar ya day dem doon seen njiit ngir fexal yonent bi sallallahu alayhi wa léegi nag ñooñu la borom bi di waxat ne ñoom bu ñu tasee jullit ñi ne leen gëm nañ yàlla gëm nañ Muhammad gëm nañ li mu andi waaye bu ñu wàññeekoo dem ci seen njiit ya léegi ñi nga xam ne ñooy njiit yi nekkuñ naa fekk ñoom naa leen waaw yéen ndax da ngeen di xamal jullit ñi suñ secret yi nekk ci tawraat ndax bu ëllëgee yawmal qiyaamati ñu leen ci kanam yàlla xanaa yéen mu leen xel foofu la ñuy moo tax ni wa isa laqu ndem daje nañu ñoom naafeq yooyu le allazina ak gaañ nga xam ni amanu gëm nañu seen boroom xaaloo ñu ne leen ñoom naafeq ya amanna gëm nañ muhammad gëm téere bi mu andi muy saa xalaat dem nga xam ne wàññeeku na baaduhum lenn ca ñoom ilaa baadin jëm ca ñeneen ña xaala ñu wax ñoom ña nga xam ne ñooy seen njiit ya nga xam ne duñ naa feq njiit ya demu doon naan attu hadisanahum ndax da ngeen di waxtaanal jullit ñi bi ma ca la nga xam ne fataha ubbi na ko te mooy xamal na mu ko allahu yàlla aleykum ci yéen te mooy melo yonent bi ca tawraat ndax tawraat dafa indi melokaanu yonent bi nii la mel nii la mel nii la mel ñoom jàng nañ ko xam nañ ko léegi nag kilifa yi naafeq yi ne yi waaw yéen bu ngeen waxalee jullit ñi melo yonent bi bu noppi te ñun gëmuñu ko kon yomal xiyaam ñu yeey moo tax mooy kon li yuhaajukum ngir nañu xuloo ñoom bihi ca loolu nga xamal leen indal indal bi ko seen borom kañ nag kéemal qiyaamati li yaajukum bihi inda rabbikum afala taqiloona mu ndax du ngeen xelu borom bi ne ah xam sa bi fu mu dugg dañ ko asaf ne ah ndax ñoom kilifa dañu yedd naa feq yu ndaw ya wala yàlla mu ne xanaa xamuñ ñoom ne ñoom kilifa ya am na laa naka borom bi yaara moo xam ne maa ngi suróo la ñu nëbbu yëpp wama ak lépp loo xam ne ñu ngi koy feeñal jaru yeddaange xanaa xamul ni ñoom lañuy ñu nëbbu yàlla xam ne ko borom bi ni wax minhum am na ñoom yowat ya umi yi yoona ñoo xam ne nañ juddoo ci seen yàlla lañ mel umi yi yoona ndey ku ndey lañ xamuñ dara dara moo tax laa yara mën a xamuñu alkitaaba téere bi te mooy tawraat mu ne illaa wante itit naa mun xat yàlla wante xam nañu amaane ay fen ay fen de xam nañ ko nga xam ne ñu ko jëlee ci seen kilifa yi ci nag seen yi nga xam ne ñoo jàng tawraat dañuy jël la nga xam ne mooy bakkanu bànneexu bakkan jox ko surga ya ne leen lii mooy dëgg surga ya nag gëm loola di ko doxee ñu nax leen bu ko defee nag aay bi day diri mbiccam ci mboolem kuy jëfandikoo noonu rek képp ko ànd ak ay nit di leen nax doo leen wax dëgg aay bu dugal na la borom bi wa in eh, déet ñoom ila yasunnuuna dara ñu nekk ci njortu fu waylun mbugal mu méttee métti yi lil lazina sax na ñeel na ñi nga xam ne yekk boona ñu ngay bind wala kitaaba téere ba te mooy tawraat bàyyi dim seen loxo yetu loolu bokkul ak la ca yàlla wàcce su ma topp yokkaloon na ñu ngay wax nag naan hasa lii ñu jox leen xamal leen ko min hendillaay moo tukkee fa yàlla li yastoro ngir nañu jëndee bii ci seen jëf ja ñuy jëf sama nañ jëg xam ne xale lañ ko tuuti la te mooy àdduna bii yaakaar na bu waxee gaa yi dëgg rek ñu daw bàyyi leen fa bu ngeen waxee caaxaan ñu topp leen lépp loo yàlla araamal ñu nëbb ko wane lu neex ñu araamal ko fu waylun pour mbugal moom lowum sax na ñeexal leen mimma katabat te la bind na mu ko ay dim seen loxo ya waylun borom bi ne xurum mbugal lowum sax na ñeexal leen ngir lan bi ma yegg si bon ci la ñuy fàggandeku kon la ñuy fàggandeku moo tax ñu bëggal leen muy baasoo biiw waqala wax nañ ñoom biir yénti bu waxee ni leen nit safara ngeen bi leen yénti bu waxee loolu dañoo tontu ne ah lan tamassana ñun du ñu laal naaru euh, safara illa ayaaman loolu fan yoo xam ne maadudatan yuñ lim la mooy ñeent fukki fan yi nga xam ne ci lañ jaamoon yëkk sa ne ñeent fukki fan yooyu nga xam ne seen maam yi ci lañ jaamoon Euh, ak safar ñeent fan leen di laal borom bi ne xul waxal ni leen a taxasum ndax da ngeen jàpp yéen ndax da ngeen téye bu jaga jaga jag indi laa fi yàlla am ci borom bi kóllëre bu dee loolu am na day fanañ yuxle fa du foose du wuuteel allahu yàlla aada kóllëreem nga xam ngeen ne waxuñ dëgg borom bu ne am bàyyi caaxaan jàpp dëgg foo ko fekk day nekk xarfu idraab mooy da ngay bàyyi lii nga ñàkk wax jàpp li ñëw moo tax am li am te mooy te xooloo na da ngeen di wax rek ala laay ci yàlla maa loo xam ne laa taala mën a xamu leen ko balaa ah kay mbugal doo leen jàpp de man kasaba koo xam ne fàgg nekk na mu sa yaata ñaaw téyeef te mooy bokkaale bu dul loolu dafay xat bu ëpp fàgg ne ko bokkaale wa aatat te mu peeg. bii ca moom xati atoo ñaatee fam yee kooku dee dafay dugg aj safara fu ulaayeka ñooñu le borom bi nii asaabu naari waa safaraa ngi noonu moom ñoom ñëpp fiyaa ca safara waa xaalidoona fa la ñuy béel borom bi nii walla siina gaa ñi nga xam ne amono gëm nañu seen borom waa amiloo te ñu jëf asalihaat yi lu baax tamit farata yeeg naafila yi ulaayika ñooñu asxaabul jannati yi waa aljanna ngi noonu xum ñooñu daal fiyaa ca aljanna ja xaaliduna fa la ñuy béel mu ngi dugg nag ci bani israila borom moo leen aaye woon ne bu leen jaam ku yàlla te na ngeen topp seen wayjur yi rafetal ko na ngeen dimbale ku ngeen tane na ngeen jokk mbokk ñu sànni ko mu ne war na nga fàttaleku fàttalekul it axas naa ba jàppee ne ñun sa borom misaax bani israila kon rek bani israila ga ca tawraat ñu wax leen ne leen laa taabudoo laa taabudoo na bu leen jaamu kii mooy xabat bi maanaam nax yu xabat bi maanaam nax yu mooy bar bi dalay xamal le bul def nangam dalay xamal waaye fekk nag la muy xamal daf la koy tere laa taabudoona bu buleen jàmm xam nga jàngeen ngeen yëpp laa nax yu da jëse mu daaroo laa nax yu te xam nga ni feeli juróom da jëse mee asaf nuun juróom asaf nuun da jëse kon bu ne laa taabudoona bu leen jaamu ay laa taxbudu xabar bi maanaam nax yu bu leen jaamu ila laa ko yàlla te war na ngeen rafetal nag na nga rafetal ihsaanan ca kanam eh, ak rafetal bil waalidayni ci ñaari way jur yi dafa rappel ba ngi lim ko itte lool gannaaw bu ngeen yàlla na ngeen rafetal eh, ci seen way jur da ngeen topp way jur yi ci wax ak jëf wasil xurba ak mbokk jege ñaale yi na ngeen rafetal jëmee ci ñoom wala yettaama jirim yi ngeen rafetal jëmee ci ñoom wala masaakin yi miskin yi rafetal leen jëmee ci ñoom wa xooloo na ngeen wax li laata ñeen ñi ñëpp pus na njëkk da ngeen wax lu baax ci nit ñi da ngeen lu baax da ngeen tere lu ban da ngeen dëgg mbirum yonent bi wax nañ ci lu leer nañ ñi bu nax nit ñi wa xooloo li naas husnan waxul lil mu'minina waxul lil muslimina li naa si la wax moo tax foo nekk rek na nga jéem lu baax ci nit ñi wax di mën na ngeen taxawal salaata julli juróom waatoon na ngeen joxe zakat asakay alal yi lii la ngeen wax suma ma tawaletu ngeen du mooyu yéen ñëpp topp ngeen du mooyu borom bi ne ah, ñu néew wala illaa qalilun ñu néew mu ngi ci yéen wa antum tamit moom yéen moo ngeen di way du yéen ñëpp lànk ngeen li leen sant bañ ngeen ko te yéen a ngi jàng tara xam ngeen ko léegi nag mu ngi dugg ci benn xisa xisa boo xam ni diggante Awsu Xasraj la ak Banu Quraysata ak Banu Nadir Quraysata bii nag bokkul ak Qurayshin bii ay yahood lañu nekkoon Madina Munawara borom bi war na nga ko it aqas naa ba jëlee nañu ñun sa borom mi saxugum seen kóllëre ga ñu wax leen ne leen laa taf si na bu leen tuur dimaa ko seen deret yi mooy bu leen reyante ndax jullit ay mbokk lañ ku rey sa mbokk rey nga sa bopp tuur nga sa deret wala tuxlu yoona bu leen génnee anfusakum seen bopp min diyaarikum seen kër yi ngeen d'accord ca moo tax su ma axrartum topp ngeen saxal ko wa antum tamit moom yéen tasadoona yéen a ngi seede lii nga xam ne yéen a koy def su ma antum topp yéen ah ulaay gaa ñii taqtuluuna anfusakum taqtuluuna anfusakum yéen a ngi rey seen bopp ndax yéen a ngi reyante yemu leen ca wa tuxrijuuna ngeen di génne fariqan ab kuréel minkum tukkee ci yéen min yim tukkee ci seen kër ya te saaroo na ngeen di dimbalante rek ale ci seen kaw bi ismi ci ay bakkaar wala xoddawaani ak ay noonoo xisa ni mu deme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem medina Munawara bo dem medina Munawara fekk fa giir gi ñoo awsu asra xaj ak qasraj ñu nekkoon medina Munawara xex nañ téeméeri ñom ñoom ñaari giir yi ndax bobu amuñu kër ku yàlla yónni ci ñom awsu ak xasraj xeex nañ téeméeri ifa yàlla tay ji nak ñom ñoy ansar tey ñooñ ansaar moo tax al islaamu yajibu ma qablahu islaam dafay dagg la paase woon boo xasee dugg rek jeex na xanaa ñu téeméeraat tey ñooy nga xamné ku nekk ya nga bëgg tuddee sa bop wala sa mbolo turu ansar tay ñom ñooy ansar te xeex nañ téeméeraat yàlla dogal nak bi fa yàlla yónnee yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fa benen giir bu ñu wax ba no Qurayshata ak beneen gi bu ñuy wax Banu Nadiir ñoom ñoo yoroon tawraat ñoom ay yowoon lañu ñoo yoroon tawraat wante Aws ak Xasraj ñoom nekkoon ci benn diina ñoom léegi nag Aws ak Xasraj amuñ diina mais dañoo amoon koom-koom àdduna dañoo amoon doole Banu Qurayzata Banu Nadiir yoroon téere Muusaa bi muy tawraat néew doole trop ba jàggi dayo ba jàggi dayo léegi yàlla dogal nag euh, Banu Qurayzata dem Hind ak Aws Banu diir ànd ak Xasraj te xam nga ay leen reyante léegi nag gannaaw ñoom ñoo yor téere Moussa bi muy tawraat si borom ay ne bu leen xeex bu leen reyante ñu dem Hind ak ay noon Banu Qurayzata ñoo ànd ak Awsu Banu Nadir ñoo ànd ak Xasraj waxtu xam ne Aws mu ngi xeex ak Xasraj ku nekk dangay dem jàppale sa sa sa morom sa xarit léegi buñ jàppee kenn ci Bani Nadir buñ ko jàppee bu na xoolee ñu dem jot ko ñoo koy jot maanaam ñi nga xam ne ñuy awsu ñooy xeex ak xasraj xoolee sata ñoom ñoo ànd ak awsu Nadir ñoo ànd ak xasraj léegi nag bu ñuy xeex yenn yenn saa yi al awsu dañu jàpp ci ci Nadir dañ fa jàpp ba ñu ne kenn léegi nag banu Qurayza mii nag nga xam ne ñoom ñoo ànd ak awsu ñooy dem jot kële te kële seen noonu noonu ñi mu àndal la bu ñu jàppee ci Qurayza kenn ba noonu na dir ñoo ñëw jot ko borom bi ne kon nag yéen da ngeen di gëm leen téere bi bàyyi leen ni li bu ñu la laajee ne leen lan moo tax lan moo tax ngeen ànd ak koo xam ne noonu seen xarit la ñu ne dañuy bañ buñ ko gañee mu dem suñu gàcce moo tax ñu ànd moom pour jàppale ko bu ñu leen laajee lan moo tax ngeen di jotante muy fi daaw bi ñu ne yàllaa ñu ko digal kon ñoom ñu ngi def yàlla bëgg waaye ñu ngi def yàlla tere ñu ngi def yàlla li bëgg mooy jotante bi ku ñu nos sa morom nga dem xeccali ko jot joxe xaalis jot ko islam bëgg na ko waaye rent bi dañ ko aaye jàng nañ ko léegi islam bañ na ko ñoom ñu ngi jëfe ñaar yëpp nag li ngeen wax bi bu na Quraysh ta ñu ànd ak Aws ngeen jàpp loolu Quraysh ñu làq ci gannaaw Aws Nadir làq ci gannaaw Xasraj Xasraj léegi nag Quraysh boobu ak Nadir ñoom amuñu problème ñoom xuloowuñu xeexuñu wante Aws ak Xasraj ñooy xeex di xuloo léegi nag boo xamee ne Quraysh ta ànd naag Aws mi mi mi xaritam waa Aws jàpp ci ba ne Nadir kenn Quraysh ta bii mooy dem jot ko bu la xaalis jot ko léegi bu noonu na dir ba leen ànd ak xasraj boo xasee jàpp ci xool seeti kenn bu noonu na dir ñoo ñëw jot ko kon ñu ngi def li yàlla santaane mais ñu ngi reyante te loolu yàlla def ko araamal borom bi nag kon nag yéen di ngeen di gëm leen téere bi bàyyi leen la kuy def loolu payam mooy safar la ngeen di jàng moo tax mu ni wa in yaatookum dañ na leen usaara ay prisonnier moo xam waa awsu ñoo jàpp ci Nadiir wala waa Xasraj ñu jàpp ci xolay seta kon taf doowum wala tafaa doowum ngeen jot leen ngeen jot leen te kat li luy mbir tey mbir muy damiru zaanu woote mbu luy mbir tey mbir mu xaramu lu ñu araamal la aleykum ci yéen ixraajuhum seenu génne kon kay gannaaw yéen a ngi reyante waaye yéen a ngi jotante afa tu'minuuna moo ndax da ngeen di gëm kitaabi ci lenn téere bi te mooy njëg gi wa takfuruuna ngeen di weddi bi bàjjin ci lenn li te mooy bañ a bàyyi reyante bi fa ma jasaa'u man nekkut fay koo xam ni yafalu mu ngi jëf zalika lii ngeen di jëf ñu ci yéen illaa xisyun la mooy gàcce ak toroxte fi hayaati dunya ci dund adduna bi te wa yawmal qiyaamati bu yawmal qiyaame yuradduuna des na leen delloo la asadil asabi ci gën jaatari mbugal wa ma lahu déet yàlla bi xaafilin muy aji bàyyi bu ko fi la yëgat yi muy aji bàyyi xam nga yaxmaloona li la ñuy jëf laa maa taamaloona ñaari njàngin la li ngeen di jëf borom de ulaayika lazina ñooy ñooy ñi nga xam ne istarawu ñoom ñoo jaayee ñoo jaayee alxayaat dunya dund adduna bi bil axirati yawmal qiyaamati ñoo ko jëndee ñoo jël adduna bi def ko seen poos sànni yawmal qiyaamati istaraw ñoo jëndee alxayaatu duniyaa bil aaxirati waxoon naa démb ne la lañ jar rek loolu lañ sànni liñ jar lañ jaay liñ nasab lañ jënd kon duniyaa lañ jënd bàyyi yëpp aaxira falaa yuxaffafu déeta déet deful oyofal xanu wëlal leen alaasabu mbugal wala hum déet ñoom ñun sura na des leen dimbale kenn du leen dimbale borom bi nii wala qad atayna jox nañu Musa alayhi salaatu wa salaam alkitaabi téere bi te mooy tawraat ma def ko maarifa alkitaab la wax wa qafayna tofal nanu min badi ci gannaawam rusul ci ay yonent yu bare bare bari wa naa jox nañu Iisa na Maryama ñoo ko jox albayinaati la yu leer nañ ñi wa ayyadnaahu ñoo ko dëgëralee moom Iisa durul qudsi ci Jibril yonent yàlla Iisa ne nekk mu ngi loro Jibril fu mu ne nekk mu ngi loro diggante Eesa ak Moussa Moussa moo jiitu wante ku yàlla mosu yónni njëkk Eesa di ñëw euh, maanaam ku mu ku mos a jaar ci yónni tekk Moussa di ñëw njëkk Eesa di ñëw si téere mooy tawraat si téere mooy tawraat tawraat injiil sabuur furqaan yooyu fi nekk tawraat mooy téere Moussa sabuur téere Daawuda injiil téere Eesa alxuraan a ngi nii ñoore ko diggante Insa nag ak Moussa ku yàlla Moussa yónni ku ne sa diina ja yaa ngi ko wécc tawraat am ñu ne mën na juróom-ñaar fukki yónent juróom-ñaar ñu ne déedéet ñeenti junne yónent dong la wuute moo ci am moo tax mu ne wax fay naa ñoo tafal tafal waate naa jox nañu Insa ibn Mariama albayinaati la yu leer naññi wa ayyadnaahu ñoo ko dëgëralee bu na xudis yi ci jibril alayhi salaatu wasalaam borom bi ni afa ma jaakum ndax waxtu woo ñëwaleef ne leen rasulun ndaw loo xam ni maa ko yónni bi maa ci loo xam ni laa tax waa du ko bëgg du ko sopp anfusakum seen bakkan rek te mooy dëgg gi istakbartum ngeen réeré lu dëgg waxul leen rek ne lii moo neex ngeen bañ moo tax fa kasabtum ngeen weddi nga xaddam ko ngeen weddi fariqan ab kuréel ca ñoom lu mel ni yéen yàlla eeta ko ndax weddi nañ ko koy bu ko koy rey yàlla jël ko yóbbu wa taqtulu na ngeen di rey fariiqan ab pàcc Sakariya ak Yaxya ñoom dañ leen rey yonent Yàlla Isa dañ ko witti Isa lañ witti waaye ñoom ñaar ñële moom dañ leen rey wa qaala wax nañ ni ngir sama yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam quluubanaa suñu xol yi xulfun dafa kastew dafa muuru duñ dégg li ngay wax ba li am mooy laanaw borom ne rëbb na mu leen allahu yàlla rëbb yàlla nag mooy yërmande yàlla moo leen sori bi kufrim sababu seen weddi ga ko borom bi nii faqat di leen ak néew maa lool euh, yom ñun ñuy gëm lu tuuti lañuy gëm de wala maa jaam bu leen ñëwalee kitaabun ab téere boo xam ni min indillahi mu nga tukkee fa yàlla musaddiqun muy dëggal li ma ñeel lépp loo xam ne maawum ngi ànd ak ñoom wakkaanu nekkoon nañu min xam lu njëkk muy ñëw moom téere ba nekkoon nañu yastaftiwoon na di ko dimbandikoo mooy sàkkoo ubbeekoo xanaa li si nekk fa root ñi nga xam ne ñoo ñëwee di ñoo waxoon ñaan dana allahumma unsurna bi alayhim bi nabiyyin mabuusi axira samaani yow su borom ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu jënd boo xam ne da nga ko yónni ci mu mujj jamono bu ñëwee ñu gëm ko ñu makka ba waa makka ñoo ko doon ñaan yàlla yónni yonent bi ñu weddi ko bañ allahumma unsurna alayhim bi nabiyyin mabuusi axira samaani borom bi dafa ne la maa jaahum ba mu leen ñëwalee maa la nga xam ni arafoo xam ñu ko ci dëgg ga te mooy melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kafuroo bii weddi nañ ko ngir kañaan ngi ragal nag ku topp rek dootoo nekk njiit ñu weddi ko fa lantulaar bu mu yàlla alal kaafirina war na ci way yee borom bi ne bii ta mastaraw ak bon la nga xam ne jaayee nañ ko bii colal anfusum seen bopp loola mooy lan an yàkk furoo mooy maxsuus mi mooy kufruum rek da ngay taawil at beeg si li bu nekk mas masdar di maxsuus mi an yàq foroog mooy seenu weddi ngay wax bul firi mu daaroma bi firil masdar bi an yàq foroog seenu weddi bi ma ca la nga xam ne an sa la na moo ko allahu yàlla baxeen ngir ak beew mooy ngir kañaan rek moo tax ñu weddi ko ngir kañaan an ñu ne si la mu wàccee allahu subhanahu wa taala mi fadli yi ci ngëneelam gi xala mi saa ku ko soob loolu moom leen naqadi de mi ne bàyyi ci jàmmam fa baaxoo moo tax it wàññeeku nañu fa baawoo moo tax wa ñekku nañu bi xadami ci mer moo xam ne mer moo xam ne mu ngi jógee faw mu ngi jógee faw yàlla xalaa xada biñ ci kaw meneen meer kon am na ñaari meer bu re balil kaafiriin sax na ñeel yéefar yi en sax bu moo xam ni muy ñun borom doyee dal ka yuñ mbugal la waxul ne mbugal mi moo doyee de day doyee dal ka yuñ mbugal wa isaqli na waxeef na mu lahum ñeel leen amino na ngeen gëm bi ma ci li nga xam ne anta la wàccee na ma ko allahu yàlla xala ñu ne ñun daal nu aminu ñun ñuy gëm bii ma ci la nga xam ne anta la wàccee na ko ale naa ci ñun gëm nañ tawraat waaye duñ gëm leneen nag ba yegg faroon ñu weddi bi ma ci la nga xam ni waraawam ca gannaawam ñoom noonu la ñuy def borom da woote moom loolu alxaqu mooy dëgg nag mu saddaqal muy dëggal li ma jële nga xam ne maa mu ngi ànd ak ñoom waxal ne leen kon nag gannaaw gëm ngeen tawraat ba li ma tax duloona lan moo tax kon ngeen di rey ambiya allah yonente yàlla yi min xam ne ci lu jiitu in kuntum nekk ngeen moom ñu ne di way gëm waxoon nañ léegi rey Sakariya rey Yaxya weddi Iisa wala xat jaakum ñëwal na mu leen Moussa yonente yàlla Moussa bi bay naati ci kawteef yu leer nañ ñi lu mel ni xet wa ak loxo ba su ma taxatum topp ngeen jàpp yéen al illa yëkk sa def ko mu seen yàlla ñëwaat sax ma fool ñaareel ba it tax sa day am ñaare ma fool dafa asax benn ba mi mbaa di yi ca gannaawam waa antum tamit moom yéen saalimoona ngeen di way tooñ wa fàttaleku leen gis axas naa ba jëlee ni sa borom mi saxakum seen kóllëre ga ngir jëfee ca tawraat war a fanaate yëkkati nañu faw ko mu tim leen a tooro doj wa mu tiim leen yéen ñëpp ñu ne xusoon na ngeen jël maa li nga xam ne aatee naa ko jox ñu ñu leen ko bi quwwatin ci farlu jël leen ko war moo na ngeen dégg li ñu digal te jëfee ko xaaloo ñu wax ne naa dégg nañ sa waxa de waaye wa asayna mooy nañ sa ndigal ñoo bañ borom bi ne usrufoo jaxaseef na fi xulubihim seen xol ya yañ la bëgg yëkk si ni bëggee yëkk si bëgg ko kenn mukk borom benn moo tax it nag bi ko firi ci sababu seen weddi ga wal na leen bii sama yaamurukum aka bon la mu leen digal bi ci loola imaanukum seen ngëm gi ndem ngëm ngeen jàmm yëkk si moom leen seen ngëm gi dëggal lii mu lii moo bon li mu leen digal moo bon in ko tum dem nekk ngeen moom ñeen di way gëm ndem gëm ngeen sax nag gëmu leen borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xul waxal ne leen in kaan dem nekk na mu lakum sax ñeexee leen yéen yahood yi daarul axiratu kër gu mujj ga indi laay fa yàlla dem nekk na mu xaalis daan dellu sell wecc ñeexal leen min doon ñaasi wala nit ñi yéen a ko wax kon fàttal man na wu na ngeen nuy bet almawta dee in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina wax dëgg du ngeen ko def mukk nag ndax xam ngeen ne moomu leen ko moo tax mu ne wala yatamannawnahu duñu mi beddee abadan faw bi maa ngi la nga xam ni xaddama jiital na ko ay dim seen loxo ya te muy weddi ga ak weddi nga xam ne weddi ko yeneen yi yëpp ku dul Moussa faalo wuñ la wallahu subhanahu wa taala alimun aji xam la mu bi ci waytooñ yi borom bi ne wala tajidannahum da nga fekk leen ñoom yahood danga leen fekk yow an nekk salaatu wasalaam arasa naasi ñu gën a xiir ci nit ñi alxayaatin ci bëgg àdduna ñoo gën a bëgg àdduna ndax dañ xam ne danañ dee dañ dekk waaye bëgguñ dee borom ne wa mina lasiina akit ñoo gën a xiir ci ñi nga xam ne parce que ko dañuy kaale ndax ñi bokkaale ñoom gëmuñ dekki ti ñi gëm nañ ko moo tax ñuy bëgg gudd fan rek ñi faaluñ dee ñoom parce que gëmuñ dekki ñi bokkaale jaamu xërëm ñoom seen yoon seen yoon newu pour ñoom dekki amut waaye ki gëm dekki nag te muy yóoxoor yi moo tax ñoom bëgguñoo dee moo tax mu ne la sin asal ko borom bi ne yewaddu dana mébét aadum kenn ca ñoom yóoxoor ya an yuhamara dundaleef ko alfasnatin junni at borom bi ne wa maa kenn ci ñoom yi mu sax si mu koy soril mu koy soril ay yoo xam marab boobu ngay taawilu masdar muy faayal mu sax si bii wa maa huwa déet kenn mu sax si mu koy soril an yoo xam mara ak dunda junne at du ko soril mukk mi na asaabi ci mbugal ma mukk bu dunda junne at it nag dee rek dugg safara wallaahu yàlla basirun aji xam la bi ma yaxmaluna ci la nga xam ne ñoom ñu koy jëf borom bi ne xul leen man kaan na koo xam ne nekk na mu odduwan di noon li jibrila ñeel jibril ba innoo naka moom na soloo ma koy wàcc xal xal bi ka ci xol bi isnilaayi ci ndigalu borom bi léegi na aaya bi dañu am wuute sababu nusool bi euh, dafa am ñu ne ibnu soriya ibnu soriya moo laaj yonent bi ne ko kan mooy indi waxyu bi mu ne ko jibril mu ne ko suñ noon la suñ noon la ndax mooy indi mbugal mi suñ noon la am ñu ci ci Seydina la Ibnu Xataab moom la moom la ko waxoon moom ci wute ne ko daal moo ñuy gënal waaye bu dee Jibril moom suñ noon la am ñu de Seydina Omar dafa amoon tool fu ñu wax Hawaaliya léegi buy dem ci toolam yi nag dafay jaar ci seen école ya ñoom yahudi yi dafay jaar ci seen école ya di xool pour gis melokaan yonent bi ci tawraat benn bis na mu jaar fa ñu laaj ko ne ko kan mooy indi wax yu bi mu ne jibril gaa yi ne ko suñ noonu la mu ñu wax ko yonent bi yàlla wàcce aayaay bi yàlla wàcce kooku mooy saw bund sol bi dégg nga moo tax mu nekkul ne leen euh, man kaana koo xam ne euh, nekk na mu addu noon li jibril la ñeel jibril fay noonu naka moom jibril nastalohoo mu wax ci alquran jeex na xalbika eh, ci sa xol bi bi isnillahi ci ndigalu borom bi musaddiqan muy dëggal nag li ma benn yedde yi di ko ci ay téere da mu nekk njub bu sara ak mbégte mu am ñu ne ñeen ñi gëm bu ne man kaane koo xam ne eh, nekk mu mu koy tontu man kaane ko nekk na mu adduwan di noon lillaahi ñeel borom bi subhaanahu wa taala wa malaayikati yi ak ay malaakaam wa yi ak ay yonentam wa jibril wa mikaala am jàngoo mikaayil yëpp njàngin la borom bi ne fii ne laa naka borom bi dafa nekk noonu li kaafiri na ñeel yëfar ya wa laqad anzalnaa wàcce nañu ilayka ci yow ayaatin kaawteef yoo xam ne bayyinaatin dafa leer nañ wa may yakfur du weddi kàccoor yi awa kullama aadu ndax ñoom waxtu bu ñu ko loranteeg ak yàlla xajan ak ko lorante na basoo dana ko sànni fa dixul ab pàcc minu boo xam ne tukkee na fa am mooy borom bi nag sa moom lépp ci ñoom daa yëm na dañoo gëmul yàlla rek borom bi ne wala ma ah jaahum bu leen ñëwalee rasul ndaw loo xam ne min ni laa mi ko tukkee fa yàlla musaddiqu muy dëggal limaa ñeel la ne maa mu ngi ànd ak ñoom naba sànni ci sa sànni na mu fariqun ab pàcc mi ne oto jo xam ne la alkitaaba téere bi kitaaba laay téere yàlla balaa wax fi ñu ko sànni wala zuhuurihim seen gannaaw ak gannaaw lañ ko sànni faalaw ñu ko mel ni amul ka àndoo mel ni ko ñu laa yàlla a xamuñu ko dañoo añaan ba ne mu war taboom topp nañu maa la xam te loolu mu ngi koy jàng sayaatinu seytaaniya ala mulku Suleymaan ci nguuru yonent Yàlla Suleymaan alayhi salaatu wasalaam loolu beneen xis la beneen xis la boo xam ni euh, dañuy wax ne yonent Yàlla Suleymaan